nga xam ne nag moom la ñu am tey jii mooy di jottali euh, lii nga xam ne moom la sëriñ bi jox mu jëm si wàllu luy sàmm ma ji ne ko ñëpp xamee Cheikh Modou Mountakha jëloon baat boobu dénk ko njabootu Cheikh Rafal gi waaye ba mu ko dénkee njabootu Cheikh Rafal gi te sëriñ di Fall nekk sa bopp ba dafa daal di woo mbooleem ñi mu bokkal Cheikh Rafal tàmbalee ko si kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor ba ni mu agsee si ma kër sëriñ Gunda Fall moom maam Cheikh Ibrahima ñoom ñëpp it kenn ku si nekk tànn ay jëwriñ boole leen ak njaboot gi ñu ànd liggéey bi di ko taxawu si ni nga xam ne noonu la leen ko sëriñ bi digale woon ñu dégg woon ko noona muy lépp loo xam ne waroon na ak lislaam lépp loo xam ne waroon na ak warma ji ñu warloo Touba ak ma ji ñu warloo ak njabootu sëñ Touba gi ndax bu nu fàtte ne li nu indi te bàyyi nu fi mooy jaamu yàlla te sunu jaamu yàlla ñun mooy topp sëñ Touba rek yaakaar ko di ko liggéeyal loola waral sëriñ bi tànnaloon nu aw yoon ba ñu demee ba dox si ab diirit ñu dajewaat ak sëriñ bi noonu ko sëriñ Bas waxee noonu ko sëriñ Cheikhum sëñ Abdou waxe sëriñ bi woolu woon njaboot gi démb ñu demoon teew fa moom mu jottali ay cant ak i ngërëm mu jëm ci mbooleem njabootu Cheikh Rafal gi si taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi waaye ba mu ko defee ba noppit mu dolli ñoo dénkaat bu baax a baax si li nga xam ne loolu la jublu ci liggéey bi ak lam sa sàkku muy loo xam ne ñun népp dañ koy barkeeloo muy kàddu yoo xam ne Serigne Abdou Lahad Mbacké moo ko moo ko fésaloon àndoon ko ak njabootu Sëñ Touba ga nga ba mu jam jam jamonoonteeloon gépp mu waxoon ni bataaxel boobu nañu ko Seex du Bachir mii jox su ko defee nu yaatal ko ñëpp xam ko ñu dégg ko xam naa dañ koy yaatal rek la si des moom Cheikh Maodo Bachir incha allahu moom moo koy àggale sëriñ bi dafa wax ni bataaxal bii moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi ngi ko def si fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre 1980 bataaxal bi nag sëriñ bi mi ngi ko jagleeloon ki nga xam ne moo fi nekkoon si jamono booba procureur de la république muy procureur bi nga xam ne moo jiite woon tribunal bi ñuy wax tribunal première instance euh, première instance de jurbel mu wax ko si ne ko si bis bi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre man Cheikh abdul Ahad Mbacké xalifa yoonu murit maag samay maag njabootuk Serigne Touba gi di samay rak ñoo bokk signé bataaxal bii di ci naqarlu bu wér euh, di ci naqarlu bu wér mu wax ne ñun ñun njabootuk Serigne Touba man Cheikh abdul Ahad Mbacké maag njabootuk Serigne Touba gi ak samay rakk ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteeloon ñoo àndandoo di naqarlu bu wér a wér ci Touba loo xam ne danoo bëgg mu faju te loola di loo xam ne dafa méngoowut ak sarti lislaam ak doxeenu lislaam ñun ñëpp nag nu ànd bisub tey bii signé bataaxal bii nga xam ne danoo bëggoon teg ko ci seeni loxo wax leen ci li nu ci naqari lépp te bëgg nu jàppaleenu si ba ni nu ko bëggee nu amee ko ni ba mu sàkkoo loolu si procureur dafa daal di lim li nga xam ne bokk na si lim li nga xam ne moo ko naqari si dëkk bi moo njabootu Serigne Touba gi. la sa jiitu doonoon li ñuy wax jaay ak jëfandikoo lépp looy lépp loo xam ne xeetu sàngara la ak ñi nga xam ne dañuy màndi di dox si mbedd mi di wëndeelu euh, euh, te amuñu fu nu jëm beneen bi si dolliku di njaay. ak jëfandikoo lépp loo xam ne xeetu drogue la muy yàmba ak lu ni mel di ko def si ak nëbbu ak lu feeñ beneen bi si ko mooy lépp loo xam ne xeeti carte la muy carte boo xam ne dañ si carte di si wu teg dara di si yaakaar dara wala carte goo xam ne dañ koy foye wala lu mel ne loterie beneen bi si ko mooy lépp luy xeetu sàcc ak maanaam nëbbal sàcc ak càccam ak ña nga xam ne ñëpp ànd nañ sa càcc ga bi si dolliku mooy lépp luy xeeti am tëgg lu jëm si ak musique li ñuy wax musique akum fecc ak lépp lu jëm si maanaam ay xew yoo xam ne dañu fay yëngutu yëngutu boo xam ne yëngutuy caaxaan la ah li si dolliku mooy si tënk ba sa muj ga mu wax ni daal lépp loo xam ne ay ay jëf la yoo xam ne méngoowut ak li nga xam ne mooy principe bu l'islam méngawut ak li nga xam ne lislaam rafetlu na ko loolee lépp tàbbi na si la nga xamante ni bi naqari na sëriñ Abdou Lahad Mbacké ak njabootuk sëñ Touba gi fi newoon di ay rakkam bëggoon nu jàppale ko si ngir loola saafarawu mu wax ni loolu ñu ngi ko def Touba fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre 1980 sëriñ Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkoon jëwriñ sëriñ Touba ànd ko ak rakkam yi yi fi nekkoon ñoom ñoom ñëpp ñu maase signé bataaxal boobu jébbal ko procureur loolu mooy baat yi nga xam ne tere yi nga xam ne tere yooyee moom moom la Cheikh Abdou Lahad Mbacké tere woon waaye sëriñ Mountakha Mbacké moom moomit bi yàlla dogalee liggéey bii dox jaar fi mu war a jaar yëpp ba agsi fi moom moom bi mu agsee dafa am loo xam ne da ko see yokku ñun ñëpp ñu dégg ko bokkoon na si li nga xam ne mooy wàllu politique politique moom dégg ngeen ni ko sëriñ bi waxee wax ni li ko gën a naqari si politique si dëkk bi bokk na si wàllu politique. Euh, tegoon na si ne lépp loo xam ne wuute na ak njàngalem sëriñ Touba loolaat bokk na si la ko naqari woon si dëkk bi loolu moom la si moo du Modou Mountakha yokk ak football football it sëriñ bi wax na ni loola bugg ko si dëkk bi naqari na ko fi bu sañoon mu dañ loolu nag gannaaw bataaxal bi Cheikh Abdoulaye Mbacke defoon sëriñ Muntaxa Mbakke yàlla na yàlla yàggal ak dundam moom it bi mu agsee te jamononte ak xew-xew yi mu seetlu ne xew-xew yii luy xajamal ak taalibe la moom mu yokk sa loola daal di wax ni eh, bëgg na nu jàppale ko si loolee ba loola génn si dëkk bi ba seet fi wécc loolu mooy ndénkaan yi nga xam ne moom la sëriñ du Muntaxa dénkoon euh, Cheikh Modou Bachir mu jottali ko sëriñ Amdi Fall ak njabootu maam Cheikh Fall gi ngir nu sàmmal ko war ma jooju nga xam ne moom lay sàkku sàmmal ko ko si dëkk bii di Touba ak si njabootam gi di njabootuk Serigne Touba gi ngi sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.